salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi seetaan seen télévision Argo TV ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission verse di jour ah comme niñ koy waxee bis bu nekk rek ñu di leen ñaan ngeen dugg ci site bi ngeen abonné tey bés zem nag waaw zem lu am solo la zem mooy bëgg naa ko ok loolu am na solo lool tey nag ñu dem ba suratul mutaffifiin mbokk yi yàlla nee na waylun lil mutaffifiin allazina iza ktaaluu ala annaasi yastawfuun wa iza kaaluuhum aw wazanuuhum yuxsiruun mbokk yi yàlla nee na xur ca safara waylun waylun mag ñi nee nañ xur ca safara lil mutafifiina ñeel na dóorkat yi yàlla nee na dóorkat yi dinaa leen dugal safara de waaw ñu ne ko waaw ñen ñooy dóorkat yi mu ne allazina iza ktaaluu ala yastawfuun mu ne mooy ñi nga bu ñuy jënd dañ koy peese ba mu daanu buñ dee jënd ci yow marchandise dañuy jël marchandise bi peese ko ba mu daanu ba ëppal ko sax parce que ñoom ñooy jënd waaye wa isa kaaluuhum aw wazanuuhum ay wa isa kaalu waaye nag yow boo ñëwee di jënd ñu di la jaay buñ la dee jaay dañ koy wàññi nit dafa mën a tappale yàlla nee na wa axalallaahu lbaya wa xarama riba yàlla daganal na njaay jënd njaay dagan na waaye nag ribaa dafa xaraam nga gis ñoo xam ni yow boo dee jënd nga peese ko ba mu daanu boo dee jaay nga wàññi ko doo ko matal ba mu daanu nga gis ñii ci seen balance yi am na nuñ koy defee dañ koy régler régler ko pour boo ci tegee rek mu gaaw a daanu nga gis ñoo xam ni dañuy jël mbuus def ci suuf sol ko ci di ko màndaxe ak kilo buñ ci defee liibar ak genn waa liibar takk ko boo ñëwee ñu di la jaay jël mbuus bi teg ci kaw balance bi ne la kilo baa ngi nii te fekk matul kilo yàlla nee na képp ku def lool safara nga jëm moo tax commerce boo ko sellalee lu barkeel la lu mën a andi alal la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko waaye nag li am solo mooy nga sellal ko ba sa alal bu ci dugal loo xam ni riba la parce que riba dafa sew mbokk yi ci réew mi rek ngay gis boutique bii di jaay kilo suukar 600 boutique bee di ko jaay 700 bële di ko jaay 800 bee di ko jaay 900 fii rek la am da ngay nekk ci benn koñ di jënd warga warga nga dem ci kii mu jaay la ko 125. kee jaay la ko cent cinquante kee jaay la ko cent soixante quinze te moon ne boo leen toppee ñaari li ci ëpp ñoom ñoo bokk fañ koy jëndee nga gis kuy jënd marchandise am jékki-jékki rek ne soble bi dafa manqué nëbb ko wala pommiteer bi dafa manqué wala suukar si dafa manqué wala meew bi dafa manqué wala ceeb bi daa manqué wala diwlin bi daa manqué te yow li ngay jëndee bu gouvernement bi waxee ni piri yi daanu na wàccee nañ piri yi yow doo nangoo wàññi parce que da nga naan la mu ko jëndee woon suma wàññee damay perte te buñ ko yokkee doo xaar yow sa stock jeex da nga yokk waaw loolu mooy lan ñun daal nañu am rek nuñ ko amee baax na yàlla nee na waylun lil mutaffifin dóorkat yi dëgg ngi noonu nag mbugal ñeel na dóorkat yi da nga ablaay na nga ko firee mu lil mutaffifiin mbugal ñeel na dóorkat yi ñu ne la ñan ñooy dóorkat yi nga ne ëllëziina isaktaalu ala naasi yastawfuun mooy ñi nga xam ni bu buñ dee jënd dañuy matal li ñuy jënd dañ koy peese ba mu daanu ci seen côté waaye wa isa kaaluhum aw wazanuhum yuxsiruun mais boo ñëwee yow keneen bu ñëwee di jënd ci ñoom ñoom dañuy jël peese bi wàññi ko duñ ko daaneel alaa yazunnu <laughs> yàlla nee na xanaa ñooñu xanaa ñooñu dañoo xamul ni bis dina ñëw ma teewal leen ci sama côté àtte leen kon mbokk yi nañ ko bàyyi xel yàlla daganal na jënd ak njaay waaye araamal na riba waylun lil mutaffifin allazina iza ktaalu ala nnaasi yastawfuun wa iza kaaluuhum aw wazannuuhum yuxsiruun asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.